sunu mbokk yu tedd yi ni déglu te diniñ seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono ji jàkkaarloo ak sang bu sell bi di Serigne Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ji nga xamee ni moo nekkal maamam ju sell ja Serigne tubaa fële ca Côte di ko fa liggéeyal ànd ak taalibe yépp ñu jàkkaarloo ak moom ci waxtu wi sunu xel dana war a maase daj bis bu mag di bisub Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul di bis bi nga xamee ni at mu jot Serigne Mourtada mi moo koy woote ca Côte d'Ivoire muy màggalu Garambassa bis boobu nag Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Ahad di ko woote ci ndigalul Serigne Mountakha xalifa général kullu murit yàlla na ko yàlla may fan wu gudd lool wu ànd ak wér yaram waaye di ko woote nag ci ndigalul Serigne Sidi Mbacké xalifa Serigne Abdoul Ahad Mbacké di ko woote tem ci ndigalu Serigne Cheikh moom Serigne Salihu Mbacké waaye ci ndigalul Serigne Cheikh Ahmadou Mbakke moom Serigne bu Mbakke bis boobu nag mbokk yi xam ngeen ni at mu jot Serigne Mourtada day tànn ay jëmm yoo xamee ni si liggéeyal nañu Serigne Touba Xaadimu Rasul di leen tuddee bis yooyu. looloo waral bis boobu bis yooyu ren war a am gaawu benn fan ci weeru septembre ak dimanche ñaari fan ci weeru septembre Serigne Mourtada moom Serigne Abdou Lahad Mbakke jël bis bu njëkk bi muy gaawu benn fan ci weeru septembre di bisub Soxna Jaara duppee ko nag kenn si njabootu xaadimu rasul di Serigne Abdou Lakram Mbacké looloo waral tey ñu teew fii ci affaire Lakram ci kanam xalifaam bu selli bii Serigne Moustapha moom Serigne Abdou karam foo si yéenee woote bis bi. waaye dimanche ñaari fan ci weeru septembre muy bisub Serigne Saliou Mbacké looloo waral tey ñu teew fii ci affaire Lakram Serigne Moustapha ñu fekk ko fi waaye fekk fi njaboot gépp fo si yéenee yëkkati kàddu yu woote ak soññee jëmale ko ci bis bu màgg boobu di bisub Serigne ñu koy amal ca Côte yi. ñi ngi leen di nuyu te di leen xamal ni dafa am bis bu mag bisu cheikhul khadim boo xam ni Sëriñ Mourtada Abdoul Ahad moo koy taxawal ci Abidjan at mu jot di ko tuddee njabootu serigne gi ba tey ji nag mu agsi ci ñaari jàmbaar di serigne Abdul Akram ak Cheikh Salih mu mel ni benn bat bu lare ñaar la ndax sëñ Abdou ak sëñ Saliou ñoo bokk mel na at mu gane àddina ci njariñ di ay xarit di ay bokk bokk luñ bëgg bokk luñ bañ di ay taalibe piir di ay jullit piir kon nag suñ demee noonu ci bokk bis bi ñëw ñu daje ñu tuddee leen ko muy gaaw ak kon bal bu la ñaar la سيني بلاكرم خمس أكتاليوم سيني سالو خمس أكتاليوم أي مريض صالح لجوا نيو خمني تام نيو أمير مان لين نيو بقى دمبلي دوما دوما كون سيني مرتلا بس سيني توا ميدا تي أبيجان تودي كو سيني سالو تسيني توا ميدا فوق خت لين نيرك ما كنت أقول نجوك أقدم بالله دائما لين يار نيو تام سيني تجيب ما يلولو دفع ملوم مسدك سيني سالو دكوا تدفع làmb yërmande àdduna làmb yërmande àllaaxira ndax damaa dégg mu suma su ma sañoon day ñaar ñii di jaay kenn du ci jaral mooy ñii ñaar ñii li ñuy liggéey ma sañoon kenn du jaral mooy ñii sang néew su ma sañoon seen di dox kon kooku bëggul kenn faatu ñi ixtikaar su ma sañoon seen dund bi ñu jaay di denc di ko jaay bu seere ñu jaayaat ko kenn du kenn du doxal kon bëgg na ñëpp dund waaye bëgg na ñëpp lekk kon nag bis boobu ñuy wootee sëñ Tuubaa te tuddee ko ñaar ñooñu te sëñ Tuubaa xet li ñu rek taxoon na jóg ñi ngi ñaan képp ku fa teew yàlla boo teqali ko loo dundee tey tey yàlla na la saa borom defal ak gudd fan ak wér ci darajey ñaar ñooñu maa ngi wax nag ki turu njaboot sëñ Saliou gépp jiital ci njaboot ga nag sëñ Sidi ndax sëñ Sidi mooy jëwriñu sëñ Saliou di taawu sëñ Abdou Lahad sëñ Cheikh Saliou itam mooy mooy mooy jëwriñu sëñ Abdou Lahad di taawu euh, sëriñ Saliou sëñ Cheikh Say tam seen gannaaw la nekk bi ñuy liggéey ko sëñ Saliou gi moo ne woon jëwriñ kon ci turu ñooñu laay waxee di woo képp ku bokk sëñ Saliou di woo képp ku bokk sëñ Abdou Lahad képp bokk sëñ Sohaybu waaye di woo bépp jullit ak bépp taalib ak bépp murit yàgg sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi jël suñu kàddu di ko yëkkati ci turu suñu kilifa gu tedd gi toog di sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Akram di wax ne bis bii fonk na ko fonkeel goo xam ne amul lenn lu mu teg ci kaw lii ngir ñaari yëf benn bi ci jiitu mbokk mi mu fegool di sëriñ Mourtada moom sëriñ Abdul Ahad jël bis tudde ko waajuram ba sëriñ Abdul Akram réy na ci moom ngir diggante sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Abdul Akram ndax ci gàttal rek sëriñ